على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد شكورا بعد همد مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاه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 bu àndee ki bokkam du leen mën a jariñ gis nga Balqiis bi ko Suleymaan bindee leetar jox ko xut-xut dañuy gàttal xissa yooyu ndax léeg duñ topp benn bom tax day day jël waxtaan yi waaye damay defe ni buñ ko junjee ñu bari xam ko ba lettre bi ñëwee Suleymaan dafa wone doole yàlla ak cër bi mu ko jox ci lettre bi Balqis soupçonné ni kii de du nitu kese hmm. ndax kuy waxe nii ci sañ-sañ bii hmm. du yónni am picc ay leetar hmm. eh, kii daal war naa am lu ne ci gannaawam lu dul li nekk nit li nit di di wane kon nag na def attention ñamu àndaloon amuñu yëg-yëg bi mu am dañoo ëppal bëgg a jaay doole luñ ko wax ndax nu uli quwwatin wa ba'sin shadid ñun am nañu kattan am nañu doole puissance lañu ku ñu jàkkaarloog danañ la fët xam nga lu mu leen wax ñun dañoo bëgg a ndax buur bu duggee ci dëkk day moom dëkk ba te bu ko moomee day salfaañe ordre ba day fekk ku tekkiwul dara mu def ko mu yilif lépp mu def ko mu yilif lépp waxul la ca des waaye ka yilifoon ñëpp mu def ko ku tekkiwul dara ndax aaliyaha saafilaha jarul saafilaha aaliyaha boo déggee ah, ah. jaal naa aaliyaha saafilaha hmm. mooy jaal naa saafila hmm. teg nañu kaw suuf teg nañu suuf kaw hmm, jaalu aizzata ahliha adillatan mafhumul muxaalafa bi mooy jaalu ba tey azillata ahliha aizzatan wa kadalika yafaaluun loolu nag la ko andi mooy ñàkk liberté moom la leen wax ni hmm. bu buur ñëwee dana leen xañ li ngeen amoon hmm. jox nit lu ñu amul hmm. ci situation boobu patriotisme mënul am lu mel noonu sax Sëñ Tuubaa bi muy santaane jumaa njariñ mm-hmm. wax ne kenn ku mm-hmm. mm-hmm. lu ngeen bëggati day leen def nii waaw foofu laa jëm loolu patriotisme économie la xam nga bala ngaa moom sa bopp ci alal da ngay moom sa bopp ci xel sëriñ bi dafa njëkk dañoo njëkk a libéré ci xel. Mhm. xel mooy mhm. moom jàng na lépp. Mhm. dem na fépp yàlla jox na ko lépp. waaye dafa jariñoo lépp doonaat kam doonoon. macha allah ngay gis ku waaw nga gis koo xam ni démb lay jaamu. nga gis koo xam ni ëllëg lay jaamu. nga gis koo xam ne xeet sàngam lay jaamu mu ni man danaa jariñoo ñëpp te boo xoolee Serigne Touba diggam ak boroom xam-xami jamonoom amul am wilaaya ci jamonoom te làqul sa ngërëm liggéeyal la ba làq sa ngërëm dégg nga amul ku am xam-xam te jëlul sab xam-xam liggéeyal la ba am sa ngërëm amul ku ñuy tagg ci mbaax te taggu ci mbaax Mhm. donc ku déggul sëñ Tuubaa moo fay nekk di ko tettatle diw diw ak diw mais sëñ Tuubaa mag ñu baax ñëpp liggéeyal na leen dégg nga mhm. ñu baax ñëpp fonk na leen mhm. tagg leen wax lu baax la mu xam ci ñoom waaye di ñaan sax ci seeni tur kan mu nga mas a gis ci àdduna mu nekk mazahib yi <laughs> mazhab yi ngay gis nit day nekk maliki yi wala shafii wala ahmad yi wala xambali moom mu ni mazahib yi fil fiqhi malikul ali wa shafii wal xanafi wal xanbali mashaayixi sayiduna al jilaani wa chazabiyu maahu tijaani koo ma sa dégg mu wax loolu kon kooku dajale na xam-xam yi ñëpp waaye ba mu ko dajalee ba pare nag damaa bañ wax wax ji màbb parce que man damay bañ di bu dugg ci domaine boo xam ne dañuy topp xasida yi ba ba génn tam bi waaye li fi ñu jëm mooy ba mu dajalee loolu yëpp ba noppi dafa dellu si Sénégal nekkub kajoor kajoor ko bool bool mm-hmm. boo xam ne ay bokkam diggante kajoor ak bool gii mm-hmm. di làkki wala fi set wicc mm-hmm. di wax ak nit ñi ci lañ dégg di jël di jël la fi ceddo ya daan def mu di ko tuubal di ko di ko jox ay nitam mooy lan buñ ceddo yi buñ daan waxante dañuy ñoom ko ci barma dañuy def wuure yoote xam nga yoote doomi tëbanaani dañ ko daan wuuree yoote ay bant la dañuy samp di waxante lañuy waxante yi wax ju mag wax di gën a kawe ci waxi buur ci yooyu lañ ko daan waxe hmm. sëriñ bi dafa jël loola tuubal ko def ko ay tomb hmm. tomb yu riche tomb yooyee hmm. mu di ca tënk alxuraan gi nga xam ni wolof mënu woon a jàng xaraf yi ba dégg ko mënu am ci uh, kàttanu tafsir ba dégg daqaaiq yi ak lataif ya nekk ci biir alxuraan moom mu di ko tënk ci baati wolof yu tënk yoo xam ni benn baat ñaari baat nga am maarifa boo xam nit jàng na ay encyclopédie te dégg nga xam a bind léegi ci uslubu tarbiya te doo ko gis mu wax waxi kuréel waaw du def jëfi kuréel hmm. nit ñi boo leen bëggoon a xaar ci ñëpp jàng téere yi doog a baax duñ baax jàng téere yi du du cërum ñëpp am na koo xam ne moom xam l'essentiel lu dund gi hmm. la mu daan wax lu mat a def hmm. lu ëpp a def <laughs> lu mat a def lu mëtu la def ak lu mëtu la def ak lu ëpp a def. Hmm. loolu bu la ko indilee nga xam ko yow boo ko xamee boo jógee da ngay jaawee ci la la la mat def. doo fa nekk nag naan. Hmm. kii bi nangam nangam boo gisee masaalikul jinaan loolu la. Hmm. masaalikul jinaan bu la bu ma bu la indiloon téere ya mu dajalee ba taalif masaalikul jinaan dina ëpp di bibliothèque bi. min kutubil qawmi la wax. al qawmu indahum. min kutubi ahli tasawuf maanaam Ghazali mi nga xam ne rek moom nee na bu ne xaala rek moom la téeréem ba gën a mag muy Ihya Ulumuddin tey kan moo am yitte ci ñun jàng ko ba mu jeex. la ko. ko ba jeex rek jàng Ghazali ba mu jeex rek kan moo am yitte ji <laughs> nga nga boole loolu boole ko téere ya ca des. Hmm. Ibnu Ataillah. Hmm. téere suyuux yu mag yooyu yépp nga boole ko tënk ko maanaam li ma bëgg a wax foofu mooy Cheikhul Xadim dañoo taxriir pour patriotisme il faut nga am la liberté de penser il faut nga am la liberté culturelle il faut nga am lu dajale li nga soxla ci àddina ba nga xam ne boo ko téyee kenn dootu la rawati loolu ñun mënuñu ko moom defal nañu ba mu ko dajalee ba pare dafa mel ni am soow ab xale mais misaal foofu moom euh, patriotisme moom ak suñu digg moom dafa mel ni ab xale xale bi dafa juddu yaramam dafa soxla croissance waaye amul appareil hmm. bu ko dajaleel vitamines yi ba mu am croissance hmm. amu ko hmm. yaay ji nag la yàlla def ci moom appareil boo xam ni mooy dajale vitamines yi mu soxla pour mu am croissance moom xale bi yaay ji day dem xale bi ci boppam moo soxla vitamine C yaay ji romb kuy lakk kuy kuy màcc li moom yaramam di daw ñu ne may leen ko ci moom kat jigéenu wérut la wala dafa yor doom day nàmpal hmm. ñu may ko ci mu mu lekk hmm. xale bee ko soxla de moom soxlawu hmm. mais yàlla yëngal na yaay ji pour mu dajale ji liy jariñ xale bi mu romb kuy kuy kuy togg ak ndawalam ñu ne ah moom da jigéenu wér la da cee bëgg wala moom kat day nàmpal da cee bëgg ten teñ ko cee kii rek loolu baaxoon ñu yëkkati jox ko yaay ji dem lekk loola parce que vitamine ba ca ne xale bi war koo jariñoo mm, moo tax mu xiir yaay ji ca loola mm. ba mu ko jëlee ba dajale ko vitamine yi xale bi soxla yépp yàlla defar na ko ci appareil bi yaay ji parce que yaay ji am appareil bu ko mën a segg deret ji jaar fii li jaar fii lii jaar fii vitamine yi jaar fii mu defal ko ko am soow soow mi laajul xale bi am bëñ te nawal gi nekk ci biir soow mi boo ko bëggoon a bu ko xale bëggoon a jëfandikoo bu amul bëñ du ko mën a yëy waaye soow mi moom yàlla def na ko liquide boo xam ni xale bi yaay ji euh, mën na koo mën mën na koo jëfandikoo bu ko jëfandikoo lam soxla woon ca lay tax mu màgg lay tax mu dund lépp am na ko noonu lañu Cheikhul Xadim defal xawma misaal mi dégg nañ ko wala déet hmm, daa dem ci téere yi uh-huh. parce que tam uh-huh. gis nga gis nga jàng uh-huh. du liggéey jàng ab marxala la rek lakinnamaa kutubuhum li tuuli li tuuli zahida fiha jullu haadal jiili eh? maanaam boobu ba mu koy wax sax jiil boobu mu doon wax ñoom sëñ Mbàkke bu sol daan wax de <laughs> ñooy jiil bi <laughs> jiil bi nag jullu xaasal jiil bi ñu ci jublu woon ñoom sëñ Mbàkke Buso ñoom sëñ Daam Abdourahmane ñooñu nga xam dañ daan naafila ay kaamil ak di di di di def ay kéemtaan ci njàng nee na ñooñu moom yitteem da leen a raw ba yërëm na leen ba da leen di tënkal da leen di def ni mu def ni yaay ji def def waaw defal ko liir bi noonu lañ leen defal ñun nag ñun loolu mu tënkoon moo gudd ci ñun suñu ñàkk yitte àgg na ci masaalikul naan pour ñun téere bu gudd la ndax moom nee na téere Masaalikul Jinaan moom ab tënk la woon tënkub la nit waroon a xam yépp mu tënk ko fa loolu itam euh, waxtaanee ko xam naa ne beneen tam la waaye li ma fa bëgg li ma fa jubloo wax ci wàllu buntu patriotisme mooy saw xeet soo ko mënta indi la lay njariñ jële ko ci àddina résumé ko jox leen ko ci seeni ndab ba ñu jariñoo ko libéré leen culturellement ba du ñu dépendre ci xalaatu keneen soo ko mënul mënoo leen a jëriñ doog leen a nag économiquement doog a ñëw mooy jàngal leen fàggul seen bopp Cheikhul Khadim lépp lu mu def da koo defal boppam gis nga yére yi mu daan sol modd la moo ko créé dàll yi moo ko daan ñëwal boppam këram yi architecture bi kees ga perma na lépp mel création am la loolu mooy autonomie autonomie nga xam ne bu ci Sénégal jógoon sóoblu soobu ci rek ba tey waxatuñu dem nañ bi yàgg xeeti ko def yëpp dem nañ Corée noonu lañ def Japon noonu lañ def Chine noonu lañ def xeet yi nga xam ne dañoo ñëw sukkandiku ci seen cosaan defar ko dem nañu ñun ñun Cheikhul Khadim bi ñoo def daf ñoo résumé loolu mbubb ñu mu daan sol dañ koy indil jàllaabi bi mu xotti ko dagg ko wut pusoom ñawaat ko defar ko modd boo xam ni hmm. moom moo koy sol génne ko hmm. dàll yi ñu jël ko mu defaraat ko hmm. tëgg ko aw tëgginam ba ci làkk làkk wolof daf ko révolutionné tey boo génnee fii di wax wax ak nit mu wax ñaari phrase ki lay dégg bu xamee Sénégal dana xam yow miy wax murit nga wala doo murit Hmm? Hmm, loolu dafa law ba ci ñun ndaw maanaam murid bi buy wax fekk yaru na ci keppaaru sëriñ bi ak ni mu fa yaroo hmm. su génnee di wax boo ko déggee muy wax di nga xam ni kii am murid la wala du murid kon ref euh, maanaam repenser xalaataat tëggaat doxin li nga xam ni ci la nit di sukkandiku pour pour développer léegi rek xam nga loolu mooy culturel léegi noo nga ñëw ci économie ndax économie loolu la ñuy tudde nerf de guerre ku amul koo xam ne li ngay dunde hmm. dañ hmm. la ko yoral kala ko yoral sëñ bi moo lay manal sañal la hmm. li gën a fës ca la koy wone gis nga arab yi ngay gis dëkku arab yi normal na nit jóge Arabie saoudite financé benn jullit bu nekk fii senegal mu def ab liggéeyam ci wàllu diine normal na dara néew ci ndax ay jullit lañu war nañoo dimbalante seen biir te yàlla moo ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal waaye normalul ci jullit bi toog di xaar ko jóge Arabie Saoudite financé ko pour mu doog a nekk ab jaamukatu yàlla ci côté boobu la normalul mm, mm, mm. ba nga xamee ni am nañu sóobu Sénégal ñu sóobu ci yaakaar ay arab ñu financé leen seeni projet ba américains yi meree ci onze ba ñu bombardé seen ñaari taax ba ñu meree dañoo def lu ñuy tuddee tëj fiiful manaabi hmm. ñu jàng culture arabe ak islam xam nañ ko mooy jekki-jekki ONG ya daan financé yëpp ñu tëj ko tere leen bañ ko defee ña daan dund ci loolu yëpp dañoo daanu hmm. képp koo xam ni say financement da daan jóge bitim réew dangaa dem crise hmm. yoonu murid dong ñoo demul crise parce que seeni financement ci seen biir lay jóge hmm. hmm? Hmm. loolu defe naa ni commencé ci fukk ak euh, ñaar fukk ak juróom-ñetti sëñ Tuubaa mu doon laaj mais loolu teewul nga jariñoo la ci biti de sëñ Tuubaa ubbiwul woon nekk woon ku ubbu maanaam jumaay njaareem ji nga joxe misaal bi ko sëriñ Tuubaa di liggéeylu dafa yebal Cheikh Issa Diène mu dem Turquie laa la wax Turquie maanaam Turquie dem Turquie xool plan wu jumaa ya fa nekk xam nga lu muy firi mooy la mujj ci la civilisation islamique ma nga woon ca ottoman ya pour wax la ban dimension la Cheikhul Khadim doon xalaat ak fan la toll woon demal dem leen Turquie seetal ma palan yi jumaa ya fa gën a rafet ngeen indil ma ko hmm. ñu dem Turquie xoolal fa Turquie nekk neuf heures ma dem naa fa lu ëpp ñaar fukki yoon neuf heures de vol wala lu mu néew ñoom ñu ko daan dem ay weeri weer lañuy dox ci àll bi bu ñu demee Turquie di wër di wër parce que les Ottomans foofu lañ nekkoon te mooy état islamique bi mujj ci àddina ci jamono sultaan Abdul Hamid fa la nekk 1924 ca la ca la ca la loolu yàqu maanaam diggante beeg 1927 sorewul 1900 loolu jamono ji sëriñ bi dem jëli fa civilisation islamique indi ñëw indi kon léegi jëli fa àddina yam ci xayte mhm. boole kook iktifa zaat bi tàmbalee ci sa jëmm mhm. loolu mooy lan moo delluwaat ci jàng baral ñépp ci njàng mhm. dellu siwaat doon ki nga doon yow mas ngaa gis ku gën a dégg sëñ Tuubaa arab an naxwu wal arudu wal bayaanu lii sulibat wa lii jànguñu lool ida ida katabtu htazza arshul baaqi wa sabbahat malaikatu baaqi hmm? jaawartu rabbi bi lisaanil arabi bi lisaanil arabi loolu def naa ne buñ ko toppoon duñ fi jóge bari na lool waaye ànd ak loolu yépp nag taxul mu nekk pusaas taxul mu nekk arabisant taxu ak arabisant feeñ ci jëmmam ci genn anam hmm. am nag loolu sax danaan gàgganti ñiy way wolof mhm. da ko waxoon ni yaa ñu gënal sunu ndey yaa ñu gënal suñu baay dani yaa yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay mu ne ko déet neel yaa gën ci man sama ndey yaa gën ci man sama baay mhm. du ma la gis ah. <laughs> maanaam euh, loolu euh, mooy mooy watan ya mhm. mooy àddina kenn mën bañ a ubbeeku ba jariñoo li fi nekk kenn mënta tëj sa bopp doo jariñoo tubaab bi doo jariñoo arab bi doo jariñoo kenn mm-hmm. loolu kenn mënu mm-hmm. waaye nag boo jariñoo ñooña ba noppi mm-hmm. da xam ne sa ndab li ba mu koy duy da nga ko duyoon ngir delloo ko si yóbbu ko sa kër kon loolu boo ko xoolee muqawimaatul wataniya al xurriya al iktifaau zaati xurriya mooy nga libre sañ a jële fii jële fii Sëñ Tuubaa ba muy dem di jële ci Ghazali junni borom xam-xam a ngi fi mais ba mu tànnee Ghazali moo ko tànnal boppam. Hmm, hmm. ba pare jox ko lu mu joxul ña ca des. Hmm. wa xaysu ma dakartu qaala bi damir. fa raajiun ila al Ghazali shahir lu tax mu wax loolu. sañ-sañam. Ah, ah. kon kon sañ-sañ boobu boo ko amul. mënoo dem. réew mu nekk danga ngaa war a am sañ-sañ pour patriotisme ñaareel bi nga am lu ñuy tuddee al iktifaau zaati iktifaau zaati nag. côté yépp lay feeñ waaye ba cay jiitu mooy ci wàllu culture hmm. wàllu pensée wàllu xalaat hmm. boo liibarul ci na xalaatee doo liibar ca na ngay liggéeye doo liibar ca lenn aw xalaatin ci la nit di njëkk a libre hmm. kon muqawimatul wataniya loolu la ba ca des mooy la ñu tàmbalee woon mooy jalbul manaafi xëcc lépp luy jariñ ca sa réew ak daful madar jañ lépp loo xam ne day lor ba mu soree sam réew képp koo xam ni mënoo xëcc liy jariñ ci sa réew te xëcc luy jariñ moom mooy sacrifice sacrifice mm. euh, am na benn terme bu ñuy wax ci jamono ji don de soi pour la patrie mm. mooy yulliku def lépp loo man pour jariñ sam réew mooy lan mooy alxitma don de soi pour la patrie mooy xut mooy xitma mooy nit ñi nañu toog ma liggéeyal leen nañuy noppalu may sonn nañu toog ma jàngi su ma jàngee indi leen lu leen di jariñ teg leen ca yoon loolu mooy xitma mooy don de soi propre loolu boo ko yooyu boo ko boolee mën naa ci bu fekkee tontu naa laaj bi donte wëri naa lu bari waaye jéem naa tontu mu xawimaatul xitma mu ngi noonu mu xawimaatul wataniya eh, sëñ sëñ Tahir waxtaan wi am na solo lool mu xawamaat yi am na solo lool mm-hmm. naa ngir njëkkanteeg xam nañ mu xawamaat yi. Mm-hmm. Euh, ñëw ci loolu mooy jaanib ijaabi bi. Mm-hmm. dina mm-hmm. yàq mooy dal. ak euh, mën a gi nga xam ne. alwatan yi na ko mu xëddi daal bi ci jiitu mooy ñàkk ñàkk maanaam. ñàkk xàmmee yi ñu bokk ñun ñëpp ak li ku nekk bokkam li ku nekk moom ak moroomam saa yu wuute amee al wahda al wataniya day dajjeeg Sëriñ Tuuba ci tàmbaleem lii boo demee ci Irwa un Nadim gis ko boo demee ci Cheikh Mouhamadinil Bachir gis ko ci euh, Minanul Baaxil Xadim mu nett la ne euh, qissa bi Serigne Bassirou moom da koo indee ci buntu Ibra Koddu Jóob hmm. ba muy ñëw di jébbalu ci sëriñ Touba Serigne Touba la ni ko du ma la nangul sa njébbal hmm. Hmm. ngir ngir xareb Ahmad Cheikhou Ba Samba Sadio ñoom dañu faa dem ànd ak waa Kajoor Ahmed Cheikhou Ba ñu xeex ak moom rey ko nangu alalam te Ibra Koddu ci généraux yi la bokkoon war aw fasam yor fas yu ñëw ci sëñ tubaa di ko ziyaare moom fañ bëgg a jébbal sëñ tubaa ne ko du ko nangul njébbal ndax fas wii mu yor gisoon na ahmad seexu ba yor ko hmm. alal ji mu yor ba dikk ci moom mënuta rey ab jullit hmm. nangu alalam ñëw ci moom di jébbalu mu ko koy nangul hmm. muy benn mawqif et pourtant sëriñ tuubaa àndut ak ahmad seexu ba ci jihaad jam doon def ndax ba muy wax moom jihaad mën hëjëm ci jihaad bokkut ak na Ahmed Cheikh ba doon defee hmm. ñuy jihaade hmm. waaye wuute ak nit ba noppi di ko défendre ba lankal nit njëbbal ndax rey bu mu ko rey hmm. dégg nga li may loolu loolu mooy loolu mooy li raar li amul ci jamono sëñ Tuubaa rek nga koy gis tey ki wuuteeg yow ki wuuteeg yow mën haj du la sàmmal moom day bëgg sa échec ndax day jàpp ni boo échecul du wane ni moom mën hajam moo baax ma indiwaat la beneen ma indiwaat la beneen misaal ah. ci benn xisa ah. bi maam xaadi ma jaxate kala booy jur lañ ci sëriñ Touba. Mm-hmm. boo rombee ci wàll ay maam ci digganteem ak sëñ Mor Anta Sali nde way juram la digganteem ak soxna jaara ci wàllu bokku ndijaayam la mm-hmm. diggante bi jaar jaar sëriñam la ndax jàngal na ko arut mm-hmm. nit ñi nag waxee nañ ko nu ne waaye maam xaadi cër bu ne la am ci sëriñ bi waaye bi mu àttee àtte boo xam ne dafa safaanoo ak sëriñ bi li mu àtte te sëriñ bi nekk ci dëgg mooy àtte bi mooy la taxoon Lat Joor xeex jiite xeex baag contre Ahmad Seexu ba la taxoon mu def xeex boobu fatwa la bu jóge ci moom xaali ndax dañuy moom la mu woote du jihaat wérul sëriñ tuubaa dégg maam xaali ñëw na deqale moom mu nekk Mbàkke Kajoor dégg ni maam xaali ñëw na faak Lat Joor lii mi ngi ci Irwa un Nadim hmm. bu Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana hmm, mu ñëw fa nag di ko ziyaare ji hmm. ndax war ma jooju Lat Joor jàpp ni dafa ñëw ngir tuub si maanaam dellu gannaaw ci fatwa bi xam loolu leer sëriñ bi ñëw toog mu lal kii lalal ko mu toog ci suuf waaye ba mu gindi ko bay wane nit boo jàmm santeeg ba pare da nga ko naan tànk yi mu ni leen mu ni ko man damaa déggoon sëriñ bii di maam xaadima jaxate kale ci barab bii hmm. di ko ziar si hmm. loolu doo nga ma fi indi ngir wan la joor ne ko yow de ñëwuma woon ngir dabu si la hmm. waaye kii da di way jur ci man di sëriñ ci man lu séq ma dégg ko ci barab bi di ko ziyaara xam nga loolu lu muy firi jamono jii ku wuuteeg yow dootu la wanatib yar ku la raw dootu yar mm-hmm. ku la raw mm-hmm. dootu la wanati ab yar ku wuuteeg yow dootu la wanatib yar day fàtte lan ko defaloon démb sëriñ Tuubaa ngi wane ni àndut ak maam xaadi ci fatwa bii de waaye maam xaadi kilifaam la gu ko jaral mu yëkkati ku ñëw ziyaara ko mu tegal ko ci kaw mu ne ko ci suuf laay toog loolu seet ko ci sëñ Modou Lamine Diop Dagana mm-hmm. lan moo yàq suñu société bi wuute te xamoo adabul xilaaf koo wuuteel noo war a dundee moom nee naa la ñaar ñi ñaari xese yi ma la andi ci ñaari téere yi bu ci ne Serigne Touba dafa wuuteeg ñoom ci doxin. Hmm. Hmm. te teewul mu war hmm. yeneen misaal ngi fi yu bari. shérif yi mu daan àndal ñu ci bari. moom waxal na boppam ni seeni silsila dem na ba gis ni wérul jokk na moom ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jël almaaxuud min allahi waaye shérif yi dañ daan ñëw ñu di ko te bu di leen teral teraanga yu jéggi dayoo mm-hmm. ba ñu jaaxle ci loolu mu ni moom kull rek fa ñu jaar ak moom ci wàllu yàlla la doon sàmm mm-hmm. tey ji bu ma la dépassé tuuti ma seex te seexoo boo ñëwee damay séentu nga toog ci suuf ndax boo nangul sama ceex rek dama lay wan ni man danga maa bëggut wala nangam maanaam loolu yépp day wone muhaddidaat yooyu maanaam Euh, am réew hmm. la koy tabax hmm. ay teggin la hmm. ak yar waaye xam bu ñu wutee parce que ñaar ñi bokkum réew te bokku ñuy gisin il faut ñu wuute boo boo yóbbu yóbbu loolu ci politique bi yóbbu loolu comportement Sëñ Tuubaa boobu yóbbu ko ci politique bi nga xool koo bokkalul parti bokku ak làng man nga koo saaga sosal ko tooñ ko waxuma laa nag di ko défendre bu dëgg jotee sëñ Tuubaa bokkut ak ni ñu doon gise bokkut ak ñoom nañ tërale nañ dégg jihaad waaye bu ñu bu bu taxaw bu dara jotul lu dul défendre leen mooy taxaw di leen défendre waaw léegi loola li màbb patriotisme loolu la beneen ba ca des mooy al amalatul fikriya mu xet di nga ma laaj al amala al fikriya amala gis nga li ñuy tuddee lu ñuy tuddee jaasuus mooy ku nekk ci sunu biir tey liggéeyal kaneen ku fi nekkul di ko joxe xibaar ak di ko di ko sàmmal intérêt ci suñu biir xam lu koy indi lañu jàlloon ca waxtaan ba mooy ñàkk a gëm li la yàlla jox ñàkk xam nooy jëfandikoo ci jariñoo ku la raw wala ku nekk faneen nga jariñoo lam yor te doo nekk ab taalibeem ñàkk man loolu sëriñ bi nag daf noo jàngaloon li ñuy tuddee al amala al fikriya nga xam ni mooy muhaddidaat yi gën a rëy parce que ay dimension la am benn day am ci iqtisaad ci économie tey bu ñu nee kii ab politicien la wala kii ab ministre la wala ab directeur la wala ab nangam la waaye amut li ñuy tuddee patriotisme économique hmm. maanaam réew mi intere réew mi jaralu ko dara saa yu intérêt jëmmi boppam teewee mu sacrifier intérêt réew mi ngir intérêt boppam soo gisee loolu parce que dafa am lu lu jiitu loolu ci yàqute hmm. dafa am yàqute gu nekk ci moom bu jiitu googu mooy moom dafa gëm boppam te gëmul li mu réewam donc amaa la fikriya hmm. ñetteel ba mooy lu ñuy tudde al ananiya ananiya hmm. wala fa nga koy tudde gàtt xel koo xam sam xel génnul sa jëmm waaw mooy gàtt xel hmm. eh, français di ko tudde égo égo égo dañuy wax égocentrisme égoïsme tey boo xoolee ñi politique ñi yëngu ci yeneen yëf ñu ci bari ñàkk ñàkk nañoo mën a ànd la ko waral mooy kenn ku nekk xalaatam da ko tënk ci jëmmam ak projet yi boppam ak gisini boppam hmm. léegi nag loolu mu hëddit bi gën a rëy ci hmm. wataniya loolu la mooy ki ma defal de moo baax ki ma defalut baaxut teewalu ma fi sama xeet teewalu ma fi samam réew teewalu fi samay bopp mais maa ngi fi teewal sama jëm ak ñi ma gën a jege loolu sëriñ si mi ngi seen biir suñu biir bu baax a baax sëñ Tuubaa mës sa défendre benn kuréel ci àddina da doon da doon da doon inkaar tey jii ñi nga xam ne dañuy wax négritude dañuy dem jël wenn bayit dong wenn bayit ci masaalik li ñuy rëy rëy hmm. it laa yuwajjibu sawaadul jismi hmm. safahatal fata wa suu al fahmi hmm. loolu rek wala wala yasudduka madal azmaani an axdihi kawni min assudaani nga bëgg a jël bayit woowu yëpp doo duñu àgg ci akramul ibaadi inda allah parce que buñ ko waxee rek weddi li ñu wax nga bëgg jël bayit woowu yëpp jël Sëñ Tuubaa boole ko ci li ñuy doon xeex lu ñu tudde la négritude te moom xamul sax luy négritude nit ku ñuul ku weex ku bula kenn la ci moom moom li mu gëmoon mooy ku gëm rasulullahi bëgg ko di jaamu yàlla di mu ko waree koo koy xaritam kooko la àndal ku gëmut loolu nga ñuul ak nga xees ak nga xonq nga mën a mel yoonam ñëpp donc thèse yooyu ñoom Cheikh Anta Diop ñoo ko moom ñoom seen débat loolu la woon panafricanisme négritude nangam nangam lool seen débat la woon mais lool du débat wu Serigne Touba du débat wu l'islam Hmm. l'islam alxuraan amul benn yoon débat boobu fu mu ko wax dégg hmm. nga sàmm wax donc li ñuy tuddee égoïsme mën na jël forme boobu hmm. mën na jël yeneen xeeti forme yu gën a suufee yu gën a ndaw waaye mooy nga jiital li nga moom yow dong wala la bokk ak la nga bokk ak ñi la gën a jege ci kaw li nga bokk ak ñi nga jàpp ne dañ laa sori te soriwuñ mooy li nga bokkal parti bi su boobaa patrie bi mooy réew mi nga bokk tey jii ab sëriñ bu doon sant ab homme politique hmm. daa war a xool lim defal réew mi mu sant ko ca hmm. waaye wërta xool lam ko defal moom mu sant ko ca hmm. loolu sëñ Abdou Lahad misaal la ci bu rëy moo xam ne ku ko jàngaat di nga gis maanaam lim defal réew mi nga sant sant ko ci mooy réew mi yëpp sa njaboot lañu ndax sëñ Tuubaa moom génnoon na sax ak Sénégal génnoon na Afrique mu ngi ci waxal défendre àddina yëpp mm-hmm. mm-hmm. yow mënoo ñëw ni dangaa toog toogaayam ba pare xatal lam yor ba ab ruq boo xam ne nii moom politicien bu la bëggee ndax day bàyyi ba gàmm ñëw mu xumbal foofa <laughs> defule fa bu paree nag mu fekk sa taalibe ba nekk ci kirikoro mu di ko nangul mm-hmm. nangul sa taalibe ba nekk ci Kédougou wala kirikoro walla Ndar kooku dul sa taalib kooku daa ajuwul ci yow kooku dangaa war a sàmm ay intérêt Hmm? Hmm. kon patriotisme gi sëñ jàngale mooy yërëm jaam ñëpp hmm. yërëm ñëpp am na fooy tàmbalee waaye tekkiwul ni foofa la sa njariñ di yam comme ni ko Rasulullah defe woon Medina la tàmbalee waaye njariñam ñëw na du fi waaw ah. jawfal faralil waa ah, moom buñ ko firee woon jotaay bi la nekk jawfal fara <laughs> bisimilah. baarakallah fikum. Eh, jërëjëf jërëjëf Serigne eh, xam naa ngir jëkkanteeg waxtu dañuy ñëw kon ci tomb bi ci topp te mooy bu mujj bi muy adabiyaat yi nag. Mhm. adabiyaat yi nga xam ne. Mhm. mooy sàmm wataniya. Mhm. ci ni ko Cheikh Khadim jàngale woon mooy teggin yi nga xam ne. mooy sàmm ak wataniya. ci ni sëñ Tuubaa jàngale ak ni mu ko gisee woon sëñ bi de daf ñu jàngal ñett nga xam ni mooy devise am al ilmu naafi al amalu saalix al adabul mardi ñett de mooy devise am ilmu naafi mooy xam-xam waaye xam-xam bu am njariñ njariñ itam tënku ko waaye njariñ ci àddina ak àllaaxira ak nu mën a jariñe nit ilmu naafi lay doon amalu saalex nag bu fekkee xam-xam bari na te jëf topp ca xam-xam dootul am njariñ coow lay doon ndax jëf mooy jox valeur xam-xam lakinnama samaruhu kan nafi fi amalin bihi fa kun dal jami dal boole jëf ak xam waaye nag adabul mardi mooy li ni fàng nga moom ngay njëkk seen ci nit ki mooy teggi ni ni nit di nekkee hmm. ak i bokkam hmm. ba mën a sàmm lañ bokk ñoom ñëpp hmm. wax naa la sëriñ bi mësta wane boppam ci diggante ay nawleen ñu daan tudde nawle ci jamono maanaam ñu ngi dox ay sëriñ la ko yàlla may da ko daan dimbalee ñamu raw la mu leen rawee da leen ko daan dimbalee waaye mësta wane boppam mas dana sant yàlla nag ca ko may waaye su doon wane boppam kon ki defoon jihaad ji bokkut ak jami prôné ba échec ca bu ñëwee da koy da koy song ni kii kat lii muy def baaxut lii moo leen woo moo baax waaye du taxaw di défendre ko loolu teggin la andiwaat naa la maam xaadi ma jaxate kala nga xam ne ñun ñëpp suñ maam la nu hmm. fonk ko lool ndax ci turaasu Sénégal yi war a bàyyi xel la bokk hmm. ndax doy na sëkk ndam jàngal naa sëñ Tuubaa bu doon wenn xaraf sax doy na sëkk ndam loolu doy na sëkk ndam wallaahi doy na ko waaye kooku ak li sëriñ bi di wuute wuuteeg moom jox na ko teggin yoo xam ne boo demee ci irwa um nadim di nga yëg ni mënul woon a am digganteem ak maam xaali benn déggoo même su fekkee ànduñu ni ñu dund ba ci tubaab bi nga xam ni ay noonam lañu mu tudde leen al aada ba mu leen di baal sax ay noon la leen tudde kon nangu na ni ñi ay noonam lañu afawtu anil aadaai turram li wajhi man nafaahum li gayri salmadan lastu adfa kon nangu na ni ñi ay noonam lañu waaye ànd ak loolu yépp ci teggin la teggin la nekke wan ak gis fu mu leen ŋàññee ndax seen jëmm ya yaa jumlatan qad thallathuu bi dalalihim hmm. pas-pas ba lay lay ŋaaññi de hmm. alquran noonu lay waxe lu'ina alladina kafaru ala lisaani daawuda hmm. wa isa bni maryama na nangam naam nangam nangam nangam nangam noonu la alquran di waxe mais du ñu yow diw ak yow diw ak yow diw da ngay ne bon loolu waxeen wu bees la waxam suñ tubaa xamu ko woon suñ tubaa danaan ñu yor pas-pas sàngam de yàlla nee nañu nang nee na ci ñoom nangam yaa jumlatan mm-hmm. qad sallasu mm-hmm. bi dalaalihim mm-hmm. ku ku xam ni lam yu sallis bokku ci waaw waaye yaa jumlatan qad sallasu ku laal pas-pas ba rek ca nga bopp kon tegginu wuuteeg nit ba pare warmaal ko loolu dañ koy jàng ci Cheikhul Khadim tegginu wuuteeg nit ñaar ñi kii da a bokk lislaam nga wuuteeg moom ba noppi warmaal ko kii da ngeen bokkut lislaam mu nekk ci beneen diine nga wuuteeg moom diine ba noppi warmaal loolu bu amul cim réew duñu mën a sàmm la na am bu ñetteel ba mooy fonk kilifa gum mën a doon loolu wax na ko ci nax ju xabaayil fonk mag ak fonk kilifa gis nga kilifa gum mën a doon yàllaa ko def kilifa kilifa jaambur nag amul nit day nekk kilifa rek nekk kilifa ci ñépp képp ku baax tey boo demoon ca ca làbbe ba mu amuk kilifaam sëñ bi jàppe ko kilifa du la tax a jaamub làbbe du la tax a def loo xam ne yëfi nasaraan la parce que yonent bi sallallahu alayhi fan dama koy jëlee ca kaw yonent bi sallallahu alayhi bi muy woo buur yi ci lislaam mm-hmm. buur ya am na ci ñoo xam ni ñoom ña ëpp ci ñoom ñu ngi woon ci shirk mm-hmm. daan bokkaale yàlla mm-hmm. ñi nekk ay majjuus ak yu kenn xamul buur yooyee dañoo tuddoon ay tur yoo xam ni turi yàlla sax lañ tuddoo ilaamu qawqis azimi ruum azim <laughs> baatu azim boo ko doon firi ci euh, arabe ci français mooy le géant de Rome mais baatu azim bañ daan jëfandikoo turu yàlla la yonent bi dee bind leetar ñooñu da di jox seen turu azim woowu mm-hmm. waaw moom lañ moom sëñ Tuubaa ci bataaxalam jëf leen kenn ku ne la nga doon loolu lay wax ba ci xaakimu ndar weddi na sultaan mais lettre bi lim ko lim ci bind mooy ilaa xaakimi ndar xaakimu ndar te pourtant xaakimu ndar inil xukmu illa lillah te looloo ko jotaleeg ñoom looloo ko jotaleeg ñoom mm-hmm. mais war ma mm-hmm. tey jii président bi da ko opposé d'accord ak moom mm-hmm. mais boo koy woo son excellence nga koy woowee boo amee yaru murit son excellence nga koy wax même boo d'accordut ak moom parce que institution bi nañ koy jox ci cër boobu nga koy jox sëriñ bi ni mu daan bindante xaakimu ndar moomu dakkooru woon ci xaakimu ndar gi waaye xaakimu ndar la ko tudde keneen ku muy tudde tur wa nga am moom la lay tudde loolu teggin yooyu moom mooy sàmm ñi bokk réew mi bokk patrie bi lay tax ñu man koo man koo man koo man koo saytu bu ñeenteel ba mm-hmm. mooy sa noon bi nga bokkal patrie hmm. su amee jafe-jafe sax wallu ko soo ko walluwul la koy faagaagal ci sa kaw la jëm si hmm. est-ce xam nga ni Serigne Touba financé na deuxième guerre mondiale jox alal ju bari tubaab yi hmm, <laughs> joxe ndigal ñu bari ñoo xam ne rangaase nañu dem guerre pour libérer France ci ci ci ci ci ci nu tudd. ci hmm. ci ci almaa yi. Hmm. taawab Cheikh Ibra Fall ca la des ak ñeneen yeneeni mag yoo xam ni ca lañ des. la waral loolu mooy. Hmm. booba Sénégal ab patrie la ci France. ab gox la ci France. Serigne Touba bu dee xeex ak waa France. nangami at ñeent fukki at. yoo xam ni ñu ngi def nii. waaye bu waa France jaaxlee moom ci boppam day jël alal jox ko waa France. joxe ndigal ak njabootam dem xeexali waa France pour libérer leen ci ci kii bi ci ci ci ci ci ci Allemagne loolu lu muy firi loolu lu muy firi jàngaat ko mooy suñu bokkee gaal gi lu ñu wuute wuute te ñoo bokk gaal gi boo daanoo ma ànd ak yow daanu <laughs> mais bi naa sàmm naa la bu fekkee yow sa kër bu tàkkee sama kër tàkk hmm. may seetaan sa kër tàkk te aw sàkkete dox suñu diggante manaan ñaw këram dana tàkk bu tàkkee bu ñëw day ñëw ci man sama kër day ñëw kon sàmm àddina bi da ci dégge sàmm moomeelu nit ajuwul ci pas-pas intérêt la dafa mel ni tey nga jógoon ni damay xeexi ku ñuy tooñ barab sàngam wala tooñ ngi am barab sàngam loolu affaire nit la ku am pas-pas bu baax da ko nangu waaye doo ko aj ci yow ka ngay sàmm mu am pas-pas bi nga am doo ko ci aj hmm. soo ko ci ajee rek déggoo sëriñ Touba li muy jàngale kon diggam tubaab bi du deme noonu et pourtant tubaab bi suñu jaar ak moom bari hmm. ñëpp xam nañ ko. Hmm. kon li ma bëgg a tënk foofu ci laaj bu mujj boobu. mooy. nit su fekkee defaruwoo. wala meloo melokaan li sëñ Tuubaa di jàngale. ci jëflanteeg doomu aadama nekkul ci yow. boo duggee ci biir réew mi ñàkki teggin googu ngay am ñu baal ma waxin yi mooy koo wuuteel nangu koo gaañ wala seetaan ñu gaañ ko. koo ëpple won ko la nga ko ëpplee sëñ Abdoulaye Mbacke daan ko wax koo tane te saa su ne nga di ko war ne maa la tane du ngeen mësa juboo hmm? kon teggi ni àddina mooy li la yàlla jox lu mu rëy rëy ña nga nekkal jéem laan cee jariñ te bu leen won sa bopp sëñ Tuubaa daal wone boppam teggin yooyu itam bokk na ci kenn ku ne cër bala yàlla jox nañ la ko jox hmm. ba ca làbbe ba kilifa ak làbbe bi jàppee ko seenu kilifa warmaal ko fii ak warma ji duggul ci dugg ci seen diine rek warmaal ko hmm. ni daal lañ gis ni mooy yi nga xam ni adabiyaat yi nga xam ni buñ ko yaataloon dana gën a yaatu hmm. waaye mooy jëf leen jëflanteeg Cheikhul Xadim ci ñamu wuuteeloon te jariñ leen ca biir wuute euh, macha allah jërëjëf euh, sëriñ Tahir euh, waxtaan ni ma ko doon waxe am na solo lool lool lool na lool waaye dañ ci dégg itam wasatu yeeg yi nga xam ne amoon na ci Seexul Xadim te alxuraan jàngale ko wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan mm-hmm, mm-hmm. ndax ni ko waxee wuuteeg nit ba noppi nangul ko la yàlla def ci moom loolu ak defaru lay tekki mm-hmm. ak mbaax lay tekki mm-hmm. eh, waaye tamit day wane ñor la yar ne moom da daan wax ne aw eh, ma xarit aw ma noon mm-hmm. saa boo gisee may may may défendre nit pas-pas ba nekk ci moom mooy li nga wax léegi pas-pas nekk ci moom ko défendre mooy mooy lislaam ja soo gisee ma mel ne ko noonu nit it xëy ba nekk ci moom mooy kéefar gaa tax waa ahbibil mu'mina lil imaani wal tubghidil kaafira lil kufraani walaw ataa ilayka bil jinaaya daaka wa daa eh, bil maali looloo xam ne xubbi lillahi wa bughdi fiihi yaqudu li ma kuntu astafi bëgg gi may bëgg te yàlla képp tax di bañ te képp tax looloo ma may li ma bëgg lépp ma di ko am la mu bëgg te te di ko am nag mooy ni nga ko waxee léegi doon njariñul ku jege doon njariñul ku sori waxoon naa ko inni abduhu xadimun linnabi mm. naawiya nafaai aqrabin wa ajnabi waaw man day jaamu bi yàlla laa di liggéeykatub rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene jariñ ku jege fas yéene jariñ ku sori mm. kon loolu mooy euh, kon moom patri patri bi xam na ko bu baax a baax mm. xam ne liñ bokk te mi ngi ko doon sàmm bu baax li nga mujj wax nag te mooy adab yi te teggin yi nga xam ne mooy li ñuy xàmmee ab murit lu am solo la te mat a bàyyi xel Euh, kenn ku nekk tàmbalee ko fi fi fi la a jege dañ ko waxoon ci njëlbéen waxtaan wi nga xam ne bay ci sa tank tànk da ngay tàmbalee fi la na a jege di dem di dem di ba fu mu mën a doon ci biir réew mi foofu ne teg sa tank boo waxee wala nga jëf ñu xam ne ki ab murid la te loolu Sëñ Tuubaa moo ko jàngale Sëñ Tuubaa daa wax ne man day ku ma bañ amuloo ma xase moom kooku bañ amuloo ko xase ndax suñu borom ma ko seetal hmm. jëfu ko waxu ko hmm. nee na bara anil xudduusu min kulli danas hmm. wa inda xayril xalqi jaawastu anas sun borom seetal na ma wécc ci taq-taq te ci liggéey leneen bu romb na anas waaye bi mu waxee loolu da caa teg ne waaye képp ku ne ci man nga aju ba noppi yor melokaan woo xam ne ku ma bëgg xas jaare ci yow amel nga ma xàq joo xam ne faaw danañ ko layoo looloo tax waaw ma ngoog <laughs> da doon daa waxoon ne man ku ma bañ a loo ma xasee mm. waaye na képp ko xam ne ne ci man nga aju mm. ba noppi yor melokaan woo ne ku ma bëgg a xas jaar ci yow mm-hmm. boo lëggee faaw danañ ko layoo mm-hmm. te wax nga léegi sëñ bi yërmandeem ju bari mm-hmm. ak ni mu yaatoo bay wax irham jamii alwara nga xam ne bay alwara bayu dara ku bare yërmande noon nag buy tëkku nit ci ne danañ danañ danañ layoo ci nangam kon mooy waneen loolu ñor na ko bu baax a baax ci njaareem wax nañ ne am na naar bu mas a dugg ci kër sëñ bi soley dal xam naa kenn ci tali bi gis ko ak ni mu xire te ñoom baaxuwuñu sol dal ci kër sëñ bi ñu jàpp naar bi ko ba mu yuuxu bi sëriñ bi génnee laajte ku ko dóor ñëpp ne teg kenn waxut mu ne leen kii de ki ko dóor bu ñëw tuub tuub ci moom ba mu jéggal ko bu faatoo kenn mun koo tee tàbbi sawar kooku doog ne ko man la mbàkke mu ne ko demal tuubal ko bu ñëw tuubal ko naar bi ne ko lu muy def nii mu ne ko moom ko da dalay tuubal mu ne ko man rus naa kenn ci xeetu yonent bi di tàbbi sawar ngir sama jëm kon jégal naa ko sëriñ ne leen kii daa bokk ci labbaal yi nga xam ne ku leen boo faatoo tàbbi sawara ginnaaw mën leen a xàmmee ñi mel nii nag kon maa ngi leen dénk amee teggin kon am nga ay teggin nga xam ne kenn ku nekk da nga ko warmaal ak loo wute wuteeg moom moo tax yenn na xam-xam yi di wax sax ne baatub xilaaf ak ixtilaaf xilaaf mooy wuuteeg nit ki ba noppi bëgg koo noonoo ixtilaaf nag mooy xëy na wuute ngeen ci ay xalaat nii rek waaye te wut da ngeen di ànd ndax yéen a bokk li ngeen bokk te mën leen ko séddoo kon sëñ Tahir eh, waxtaan wi am na solo lool lool lool ñu ngi ci am bu baax a baax a baax te di la ñaanal suñu borom gën laa yokk gën laa sàmm gën a leeral eh, xel mi ak ak bu baax a baax a baax ci njiital sëñ Seynu Jatara ak mboolem xam ne ñooy sa barikaan yi ci kilifteef sëñ Moustapha ñu ngi lay sant bu baax te di la bu baax ñaan suñu borom defal tawfeex barkeb Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد شكورا بعد هند مقلد لبا salaatu lazi anu abdan bi ala man bi li xaada sabwan bila kadar fasaatu xayri lxalqi abdat qasaidi wa kawni bi abdan xadiman lu sahar rabitu rabam lam yakun qattu misluhu